أنزكى المصطفى ورد القديم إلى يقدم دماي فالمستوى ورث القديم بفضله وبجودي وزدائي دمو دماي فالمستوى ورث القديم بالنور wa jamaalihi wa jalaalihi domoo di baay fal muxtaar warisal xadiima bisri wa bii wa bii domoo di baay wa tumbikam mutawaaxa jaarakum xataarakum maa ahli yaa ahla ngaay yéen waa ki ñu baax war ngeen a kañ ngir Musa um la mi Mbàkke jawaawalaay yaa ñaaxeer ñaaxu leen sa Musa la bàkkol bàkku leen ci Musaa bëggalaat na leen bi kalaami am ngeen médaay daarom yo mooy tuubaaw Usmaan bi ku fa mënta dem na siyaare ji ñaaxen baate ngaay yaa madunal muhammadil muhammadil yawmal qiyaamati sant leen sunu way wi waay Cheikh a àndal dal nga xal wa ma ngërooy fi àndul woon jëbal sa baay woman bu may bool a fa noon góor ak jigéen yaa leen di joxay càngaay ku la ndaw nga ndab ku la fay nga fay le te doon fay boole mbir mi ak baay ay seeni baay yaa nuy teral yaa nuy yaram di lu may daram yaa ñu defal yaa ñu defal yaay jël waay yaa teraangay mag ña Bamba yoraale woon moo tax ñu lim nga ba jàll Saalum jàll xaay yaa xam teraangay waa Kajoor ak waa Bawal yaa yor sama buur yi fi daal dem la wa ma naar wa ma dool kajoor yaay di doro baa doole ñi fi sant njaay yaa musawaanul musawaanul musaa yawmal qiyaamati rang leen fa ay medaay miskin yi daan ci wam sa si ferle na seen yaa ma raqaay mag daqatul ndaw tuy dëddu raaw mépp fi sa baay yaa tee cogum lislaam soppi ko baat o yaay yaa tee murid yi seen yaa boole gàlle boole jëli yëpp jar antal imaadu li ahlina yaa am welaay yaa boole ndongo boole bokk yëpp yor yal na fi dem na njaama dundal fay waay taalu murid waa ko yor yaa teemu fay ma lay tëmbal taal du fay sow du naa المتقى يوم القيامة كل لين جزل غاي موسى كلام الله مونون سوا وانيل جرام فكي جلي مطلب جتاي موسى كمي موي لابتو ملي موسى yaa moom la ñu waajee xarnu bi ña gëmoon sa baay gaanu muri soxna sinduraay nuurul wilaay mooy masin ba waat topo tari jaala muri ay sin wel waay sag leer a jolli fi nun ba leeral waa tugal moo tax ba la bay wàcc Jurbel na la kaay sag leer a leeral njambur ak siin a bawal leeral moo leeral ba muur ak i caay sag leer kam lay xor xor bay xooy xooyaan yaa tax ba la bay faale sag leer leeral njàmbur ak siin ak bawal leeral buur leeral ba muur ak i caay caay muntaxa nul muntaxa yowmal xiyaamati boole leenu ca Mariya waay antal muxaddimu wal xalifatu fil wara baadal xadim yaa defan kada baay giñ naa ni kuy woote xalifatu yaa ko gën ndesa baay ba moo gën seeni sëñ gën seeni baay leen yemu leer ko saan ga xewaan fa Mbàkke fuyoo ko yow lambay ko mooy saay saay na wata sarxan suma xarban mustawa somsul waraaya faw xeweer ab leeraay xutboo ngi ni gaañ wuy siwul lañ naa xamul géej gaa ngi ni am xaayaa ni mooy wey baxaay بحر نقيقة وسريئة وندى ويجل للوراء أيد واي يا إمام البحر الندى سمولين تدوي يا دمتي كل تبتوي كل منتاي يا متجام متجام متجام yawmal xiyaamati ni ñu yaakalal saay ku la am ku am ree ku la ñàkk ku la rëy reere yal na baa laaxu cafaay yal nañ la ful tanga ful nu fal nu bi jaayukum koo fond faale brang baa laaxu kuraay waajoo sa pooj day gën di sabta dootu nu soob ku ko wel seet ko seet dootul kaati ji baraay ku la xas ba soob te xas ni soob te dootul saf ku la soob mu war ci naaru góor di tëbal di raay yaa nañ la soob yaa nañ la soob yaa mu tawaa ku la soob mu sol njallaa bi mbaa mantu baraay ku la yaa gën a yegg baayam xarit yaa gën a jaay yaa namp ngor yaa donn ngor yaa donn ngor yow yaari weddi nga càllaloo duñu ni ñaay yaay Musa ma ñu tànni kokki di ko bilihaat di ko bilihaat ba ay sa samaami baay ngay Musa ma ñu tànni kokki di ko bilihaat ca xala cokkeem seen jaay cey waame taw na fi sowal fi penku bi koo may mu sarse bitig bu raw bitig sukaay du xeppi xool ngir ke sa yow loo ngeppi dem say kaddu weji na bokk mu buur ci yi mi daay ayaa xamul wara yaa musaa ba yaa garab baloo ko xiimu mu nasaay وتعالوا رك في زمانك ربنا يا تخمر دي زيارك جوي داي ويكر ولا موي مصطفى وخي كفال بكر من مصطفى دمون باي مصطفى خديم مصطفى مولد وي من مصطفى ku ko feelul mooy saay saay yaa mutajaam mutajaam mutadaa habli ridal waridal xadiim ko doon sa baay yaa rabbi salli ala nabi muhammadin